قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم maanaam li fi mag ñi daa àgg si fi mag ñi àggoon si ci ci loolu moom waxtu wu ne na ko am xam nga sëñ Tuubaa gaa yi mu àndaloon da leen daa teg ci yoon di leen tërbiya di leen teg ci yoon woo xam ni ku ca jaar yàlla moo lay jox lam lay jox yàlla mooy joxe sëñ Tuubaa nak booba yalla da ko fetewul muy séddale cër yooyu képp koo xam ne mel nga nga wara mel mu jox la cër ba nga ba nga yelloo yalla mo doon joxe nak mi ngi fi do fi jug mukk kep ko xani mel nga na na sëñ Tuubaa bëgg gaañe mel na waxtu ne mu jox la lam da jox gañ loolu do fi jug mukk positif ba kay moy manki mooy positif ba gañu ñi amon mom mo jafe ñaaral bi tam gañu ñi dañu amul xewal moy bo bañ fi ne boba télé yi amagut internet bi amagutoon yu bari yu fàbbit nit ñi ak di leen tënk ak di leen yàqal amutoon booba moo tax mag ña mënoon a mucc ci lu bare bari bare noonu nag jamono jënne moom daa gën a doy moo tax nag lu waaye góorgóorlu lu mu néew néew rek fi ne mën nga am lu bare bare bare ndax jamono yi bokkuñu te yàlla itam noonu lay fayee fu ne fu mbir mi gën a jafe am ak mbaax fu mu gën a jafe maanaam waxtu ak mbaax gën a jafe fu ne yàlla ci waxtu wu lay lay gën a gaaw a joxe nit ki lam ko jox moo tax li ba li am solo rek mooy tënk tënk sa bopp ci bëgg gu Sëñ Tuubaa ga fexe ba li Sëñ Tuubaa bëgg wax ko mu dig taalibe bi nga nekk ca daal boo ca nekkee yàlla mii joxe moom nga xam ne cër bu waaye am moo la ko jox lu waay falu moo la ko fal moom mi ngi fi tudd fi jóg mukk te itam yitteem mooy ku ko wut si moom suñu borom tabaaraka wa taala te itam dafa bëgg jaam ñi bëggal leen itam ak mucc ak xéewal yitteem du du du mbugal nit ñi moom suñu borom tabaaraka wa taala yitteem mooy mooy ñu dellusiwaat fa moom mu taral na moo tax sëñ Tuubaa itam yoon wi nga xam ne ca ngay jaar ba am teraangay suñu borom jooje loolu doon jàngale yoon woo lu ci waay jaar rek lu mu néew néew yàlla dana la xëccal boobu gàttandu la suñ borom nee na man taqarraba ilayya ziraan taqarrabtu ilayhi baaxan boo doxee wuti ko mètre ab mètre nee na moom day dox kilomètre wut si la moom suñu borom tabaraka wa boo doxee kilomètre mu dox lu xaw a jege fukki kilomètre wut si la noonu lay gàttandoo gaañ yàlla nu gàttandul boobu te taxawul nu boppam ci daraja sëñ Tuubaa moom li am solo mooy fexe ba la ak bëggam moom nga nekk ca rek yan ca yàlla saxal nag te ban caa ju caa jug ba ilaa yawmi kon nag booy wër bëgg bu sëñ la ci jiitu mooy nga seet la mu moom dafa am yoo xam ne sëñ Tuubaa da ko bëggal boppam muy dafa bëgg yàlla ahbabtu rabbal alamin dafa bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam diini ya xubbullahi ma xubbi alladi ida qama mooy yonente bi da ko bëgg dafa bëgg weer wi weeru weeru koor wi itam mooy uhibbuka ya shahra siyaami bila ghishin loolu ma dafa bëgg itam alquranul karim mooy anta xabibi la ko wax wa xalili wa qablu kunta tabibi kitabu kadini wa huwa khilli wa munisi yooyu mu bëgg nak gis na ne bëgg ko yow bo ci mënta bo ci mënta sori itam nga bëgg ko rek ngir bëgg Sëñ Tuubaa goge lolu mo jiitu ci teel bi la ci dasit moy la Sëñ Tuubaa da digle nga di ci jëm sa kam katan lim da diglé itam bindal nako bopam mi ngi ci bindam mi te moy téré bi yimu talif ak dénkaanam yi nga xam mom lañ dajlé ci maj yi loolu daal mooy melo aw murit murit saadax Sëñ Tuubaa wax na ne ñeenti melo la am ba ca njëkk mooy sag bëgg ci sëñ bi dëggu te wér te dominer sa xol dominer sa xol mooy mu bañ faa nekk geneen bëgg dafa am xeeti yeneen bëgg yoo xam ne mënuñoo ànd ak bëgg Sëñ Tuubaa bëgg lenn lu xaram wala lu yàlla loolu naqar yàlla mënta ànd ak bëgg Sëñ Tuubaa ci xol moo tax dàq bëgg yooyu saxal fa bëgg Sëñ Tuubaa suñu bëgg suñu tuba leen rek lay andal moy bëgg yàlla ak yónnante bi alayhi salatu wasalaam la ci topp mooy la muy diglee nga di ko jéem boo mënul lépp nga di ci jéem sa kem kattan ñetteel bi mooy moytu tere yi yi muy tere nga di ko moytu te suñu tuba wax sax ne moytu googu moo moo jiitu maanaam maanaam boo mënta def ndigal yi fexal ba bul def li ñuy aaye loolu moo jiitu aaral sa bopp ci li ñuy aaye bul def lenn luñ aaye li sëñ bi aaye wala mu diko diglé né ne wala mu wax ne baxut yoy yépp nang ko moytu sa kat so so mané a bo so soo ca mané bolé def limi diglé lépp nak baxna na mënon nak la nga man ci diglé rek nga diko def té yalla tax ñentel bu moy nga baña dingat lépp lo xamul nga laaj ko ba nga xaar ba gis ku ko xam mu xamal la nga baña dingat lo xamul ndax day bari looy gis ci gaay yu bax yi té do xam lu mu tuddé buñ la ko léralé mu lér sa bop boo dee ku bari critique nag da gaaw a critique te mën nga ca yàqu waa ju baax soo ko dingatee li ci ëpp doo deewaale ngëm maanaam salabul imaan yi yal yàlla musal ci doon loolu yàlla dina toog yàlla ci moom dafa fiir ci ay gaayam dafa wax ne man aada li waliyan faqad aadantuhu bil xar bi bi alayhi salaatu salaam moo ko wax moo ne waxuma la ngay jug di wax waaye boo ko noonoo ci sa xol rek te moom dalay lay déclaré moom suñu borom tabaraka wa taala yal na yàlla musal ci noonu waaye yàlla loolu moo di teel bi ci gàttal yàlla na ci yàlla saxal te defal na ci lu kaw njort ci daraje Sëñ Tuubaa aoudu billahi min asheytan rajim bismillah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم